Euh, tey nag ñu am mbégte ak kontante bu toll ni xëy ñëw Kachoane muy euh, île bi nga xamante ni dañ koo tànn pour wàcc fi pour mën a waxtaan askan wi jigéen ñi nga xamante ni dañu organiser wu wala dañuy waaj a organiser wu pour nekk ay GIE wala nekk ay association ah euh, ñëw bi nag li ko wundu luy leen rek la mooy ministre Zahra Iyane Thiam mi nga xamante ni moom mooy kilifay ministère bi di dox ci waawu président son excellence président Macky Sall mom la ko sante mu waccel ko politique publique yi nga xamanteni mom la jagleel askan wi ñu mën ci jot kon tay ji dañu ñëw fi ci waxtaan ak wa Kachouane xamal leen li nga xam ñing koy liggéey liggéey bobu nak buñ koy teunk dafa tollu ci ñaar ba ci ñetti poñ mën nañu buñu mëne sax mën nañ tarxiis ba dem ba ci ñentelu poñ bi Ah, bi ci njëkk moom mooy la nga xam ne ñu ngi cee liggéey pour politique publique yooyu wàcc ci askan wi loolu la ñuy andi jox leen ko te loolu dafa am ay euh, jumtukaay yoo xamante ni fa la ñuy jaar mu nekk ay mécanisme yoo xamante ni dañ leen di ilaa dañ leen di jàppale mu nekk ci wàllu appui ilaa dañ leen di andil euh, benn benn lu bees tàq dajji paquet mu nekk loo xamante ni wàllu daf leen di jàppale ci euh, loi Bohaman xamanteni daf leen di teunk ñoom daf leen di ëmb ci ben euh, lu melni paquet pour ku ci nekk wara mëna xam ci lan nga nekk ñu koy tuddee loi d'orientation sociale bu économie sociale et solidaire koku bu ma ko waxee nit ñi nañ xalaat ci ndortel bi lan moy économie sociale solidaire ñun suñu ministère dañu baxo ñaari patch la manam bu wax dañ naan ñaari la ben bi ëlbeutiku ci économie sociale solidaire benen bi nekk ci microfinance microfinance bi nag nit ñi daanaka xam nañ ko économie sociale solidaire bi xam nañ ko naam waaye dañ koy def sans ñu mën ko ràññatle donc loolu moo tax ministère bi ci euh, ci ci ci li nga xamante daf koy def pour pur pour siiwal pour nit ñi xam lan mooy économie sociale solidaire mu teg yooyu mécanisme loo xamante ni dana jëriñ nit ñi loi d'orientation bi moom moo ko te loolu maanaam mooy li ma rek lu bees tax la donc loi d'orientation bobu moy wax nit ñi bo leen nekké acteur économie sociale solidaire yii euh, avantage mo ci nekk bo leen nekké euh, acteur économie sociale solidaire yii mandarga ngeen wara mëna am té loolu dafa am solo mu am jeexital mu ag ci askan wi. jappalé euh, dafa yemul rek ci jappalé ci ay copar ndax nit ki bu fekkee ni da nga bëgg sa su nekk nga ñëw jox ko am na ci foo xam ne boo fa tolloo da ngeen lot waaye jàngal ko nañuy nappee moo ëpp solo ndax ëllëg da koy permettre mu mën a jóg utali ci boppam te nit ki pour mu mën a jóg utali ci boppam foog mu xam fu muy jaar foog mu xam ci li muy dugg ci li mu nekk lan la donc ñun ci boobu euh, ndimbal ñu leen di andil dañ leen di encadrer encadrement bi nag mën na nekk ci wàllu formation mais li ci ëpp solo moom mooy ci wàllu structuration parce que balaa nga naan naam ne fa pour nga mën a ne yow ci acteur économie sociale et solidaire yi nga bokk mais dafa am ay chart ay mandarga yoo xamante ni ku la gis ak ni ngay doxee ak ni ngay doxalee mu mën la ne yow yi kat yaa ngi bokk ci acteur économie sociale solidaire surtout que nag dañu nekkoon ci loo xamante ni dañu ne woon dañu dañuy boole képp ku nekk économie sociale solidaire ñu xayma leen xam nu ñu taxawee ak fan la ñu taxawee ci biir Sénégal bi. ñuy moom mooy. activité bu nit ki mën a dem dafa war a exploiter euh, possibilité wu terroir bi maanaam la nga xamante ni moom mooy la cosaanoo la baaxoo ca foofu loolu la ñuy jël exploiter ko parce que euh, adduna bi léegi wala Sénégal ni ko bëggee euh, dox ni ko bëggee pàcc mooy ku ci nekk la ngay say sa xarañte ah la nga xamante ni doo ko jéggaani foofu lay jóge loolu ngay jógee fexe ba defar ko ba mu ñoŋ ba ku ko gis naw ko ku ko soxla ñëw foofu su ko defee mu am jeexital ci ña nga xamante ñoo fa def waaw li ñuy xaar ci visite ministre bi moom mooy ñëw nañu ñun ay ndaw lañu ndax comme ni ma ko waxee rek ministre ci Iyane Thiam euh, jigéenu fàkk tëdd soxla si jigéen ñi rek moo ko ñor waaye it nekk ci euh, yiitey son excellence monsieur Macky Sall donc tey ji bu ñu fi ñëwee dañ ñun dañu ñëw déglu si taataan si xool li nga xamante ni ñoom moom la ñu soxla bu ministre bi ñëwee jàkkaarloog ñoom la ko président la république sant la mu ko wax ne ko demal ba fu gën a sori nit ki nga xool luy soxlaam nga taxaw ci def naa ne bu ñëwee kàddu ak tànk yooyu ak mébét yooyu la fi ak